Euh, xëy na ñoom mën nañoo bañ a xam ndax ku xamut xamut waaye Ousmane moom xam naa ne xam na moom bu baax te xam na sama taxawaay et xam na ne intérêt général lay défendre moom laa mësa a défendre xam na ne peuple bi laay faral te moom il est très bien placé pour le savoir. Mm-hmm. dégg nañ nga nga wax ni yëf yi tentative d'assassinat la. ndax mm-hmm. da nga nar a bàyyi mu jàll wala danga nga topp yëf yi. alors ce qui s'est passé mooy euh, keroog waxuma sax euh, ne sunu borom bu ñu defalul woon sutura musiba mën naa xew. Mm-hmm. chauffeur bi nga xamante ni moo yor sama oto dafa paniqué dafa tiit ndax xëy na mësul retrouver wu ci situation yu mel noonu dugal oto bi ci impasse ndax foofu dafa am ay travaux BRT la yaakaar naa ñu daw fekk xam nga fu amay travaux BRT dafay bari ay xeer parce que day ñu jël xeer yooyu nag commencé di ko dóor ci oto bi dañu jàkkaarloog ñu nii ci pare-brise bi di dóor xeer yi ci pare-brise bi di xëcc bunt bi am ci ñoo xam dañu doon xëcc bunt bi naan tijji leen ñu def nangam. yaa ngi dégg loolu bu dul tentative d'assassinat xamatuma lan la xam nga ñiy wax yépp mooy ñi nekkul ci situation boobu dunduñu ko sori woon nañ ko ñu ci bari par par parloo fees dell ci seen xol ñu écumer les plateaux de télévision di wax loo xam dara wóoru leen ci waaye li nga xamante ni moom moo xew loolu la donc loolu am na ci ñoo xamante ni ils dans le dispositif ñu ànd Euh, yàlla xam na ne traumatisme bu métti la ñu nekkee parce que tamit jàpp nañ ne keroog euh, sunu borom moom moo ci def sutura waaye lu ne mënoon naa xew parce que mouvement de foule dafa doy waar lu nekk moom moo ci xew ku nekk moom moo ciy nekk. te lu ne mën na cee xew après ñu ne xamuñu woon xamuñu fan la jógee xamuñu kan moo ko def c'est très simple fekk ne boobu béy wéy na mbuus. est-ce que ci mbir mi. Mhm. nga def conférence de presse wax assassinat est-ce que nekkoo di exagérer. déedéet exagérer trop dans la victimisation. déedéet man loolu duma ko def xam nga loolu ñi koy wax yépp mooy ñi nga xamante ni lépp lu ñu am xëy na victimisation moo leen ko may. man nekkuma ci loolu moi je suis journaliste à la base je relate les faits bu ñu fàtte jete factuel te xëy na sax indiwuma lépp ndax jaru ko sunu borom lay jël témoin j'étais factuel keroog lu ne mënoon na xew lu nekk mënoon na xew lu ne mënoon na xew sunu borom moo ñu defal sutura pour preuve gis nga bi may wàcc garde du yi nga xamante ni ñoom ñoo yoroon la sécurité de la manifestation bi may wàcc kaw tribune bi kenn ci garde du corps yi dafa kenn ci garde rapproché yi foofu dane ma booy wàcc col bi nga yor mooy drapeau Sénégal bi ma bi ma koloo woon dane ma booy wàcc taf ko sa bakkan comprendre wu ma li mu doon wax mais bi may wàcc genre xaw ma pompe à gaz la xaw ma am na ci loo xamante ni dañ ko dóor mu romb ma genre ndox la xaw ma genre poudre la xaw ma lan la donc je ne savais pas ce qui se passait et leneen li nga xamante ni xëy na aussi maa ngi koy déplorer c'était l'absence des forces de défense et de sécurité hmm. gisuma leen foofu alors que pour man mouvement bu toll noonu ful bu toll noonu fu ñu dajee il faut que les forces de l'ordre yi nga xamante ni ñoom ñoo war di indi ordre ñu gën a jege parce que lu nekk mën naa xew ndax mouvement de foule dafa doy waar. Ah, alors lan nga jàpp ne moo koy expliquer parce que nga nangu ko nga bañ ko nangu. Hmm. c'est comme si dafa am euh, lu ñagas. et même une entre yow ak ñi nga xam ne ñooy certains militants de de Pastef. lan moo ko expliquer xam nga pour man bëri na ay facteurs. yu ci am bu njëkk bi mooy ñu ci bari su fekkee dañu wax cash ñu ci bari dañoo jàpp ne xëy na man. dama waroon a déclarer suma candidature rek daal di dem dugg Pastef wala ma dem dugg yeewi askan wi mën nañu jàpp lool seen gis-gis la am na si ñoo xamante ni xëy na jàpp nañ ne dama waroon a ñëw li ñëpp di wax ma koy wax ni ñëpp di doxale ma koy doxale ci façon bi donte la posture elle est indiscutable mais dans l'approche ak ci façon défine bi man mën naa ne man nii laa gise keneen ne nii la gisee mais bu ñu demee ba kenn dootul am sa façon gisin mais àdduna tukki na mm-hmm. il faut que en politique un homme politique ki n'a pas une liberté mais na bàyyi politique loolu doxin boobu laa am boobu ba tey liberté de ton liberté de pensée liberté d'action mhm. su fekkee loolu moo xew léegi ci espace public bi ñu bari li ñu xalaat ñemeetuñ ko wax mhm. ñu bari borom xam-xam yu bari dañ lay woo ci suuf ne la nangam de xew na nangam ak nangam waaye bu ñu demee ci télé bi leneen la ñuy wax bari na fi ay chroniqueurs yoo xamante ni bi liy xewee li ñu wax ci suuf ak li ñu wax ci kaw c'est différent totalement différent mais parce que ñemewuñ ko wax ci kaw. Mm-hmm. peut-être ñu ci bari léegi am nañ ay chaînes YouTube ña nga ciy dund xam nañ ne bëgg nañ nombre de clics bëgg nañ ay vues li ñu seede ci kaw. ak li ñu seede ci suuf dara bokkuñ le courage et au savoir ce le souffle est à la vie. boo amee xam-xam te amoo fit gasal pax nga dugg ci yaa ngi mel ni ku bëgg a dund te amuloo nokki donc pour revenir ci question pour finir question euh, Khadija bi par rapport gis nga bi loolu xewee mhm. ñu ñëw apprécier en staff nit yi wax dëgg yàlla ay ay ay gor lañ am na ci ñoo xamante ni xëy na tey ji seen yaakaar Papa Djibril Fall moom moo koy porté moo porté idéal bi nga xamante ni moom la ñu gëm ñooñu nga xamante jàpp nañ ne seen ki nga xamante moom la jiital ci liggéey bi mënoon naa ñàkk ba kanam mais ils étaient tous dans ci ay boo xamante bu doy waar la ñun ñoo leen doon calmer man maa leen doon calmer jàpp nañ ne sax man dama woyofal mbiri ba mu ëpp. alors fi ñu nekkoon ci après incident bi. Mhm. dégg nañu nga wax ne. Mhm. Euh, on ne prétend pas apporter moom ngay waxal ci moom ngay def allusion lan nga ñuy wax ci loolu. déedéet man loolu taxul lu mu loolu mhm. maa ngi ko doon wax képp kuy jóg pour def politique. xam nga tey jii fii nga toog Fatou mënoo fi woon a toog lu dul da nga am jaar-jaar bi nga jaar ba pare dama wax ne képp koo xamante ni jóg nga ne da nga bëgg parce que kiy jóg di def politique mooy ki nga xamante ni nee na jox leen ma dénk leen ma ma doxal mais yow mënoo ne da nga bëgg def politique bëgg a nekk solution te yow koo dajal problème ngay nekk ci moom. Mhm. mënoo dajeeg nit sax wax ak moom defal ko mu am problème nga déglu ko lu dul danga koy da nga koy yokk problème c'est-à-dire que ñun suñu responsabilité aujourd'hui c'est d'être des solutions ma ne képp koo xamante ni bëgg nga def politique boo yaruwul mënoo yare loolu laa wax boo defaruwul mënoo defare suñ noppiwul ci yow mënoo defar dara c'est ça que j'ai te loolu ñëpp xam nañ ko te loolu mooy la responsabilité des politiques aujourd'hui c'est que ñu góorgóorlu ba nga xamante ni ñi nekk ci suñu entourage déjà man tey ji très sincèrement bugguma ñi nga xamante ni dañ mooy tuddoo tey ma nekk ak ñoom di liggéey dama su suñu jotaayu politique yëpp et je parle sous leur contrôle ñoo ngi may seetaan suñu jotaay yi ñuy def yëpp rencontre politique yi ñuy def yëpp chaque jour presque ba deux heures du am mut jamono bu ci nekk lu dul dañuy fàttali li nga xamante ni moom moo tax ñu dugg politique. alors avant may jox ma muy muy ma ma finir foofu ma ma finir foofu. Mm-hmm. muy xam-xam ñu jéem ko am bu wér politique du saaga. politique du xastante politique du ŋàññante politique du sosalante te loolu moo fees léegi ci espace public bi ñoom loolu du suñu gis-gis moo tax ku nekkagul solution. nekk problème bul def politique demal nga toog sa kër. alors ñu nangul la ko une posture très responsable mais mm. également beneen bi c'est vrai que euh, politicien nga ak am nga sa liberté raison pour laquelle nga dem choisir non aligné mm. mais bruit bi nga xam ne euh, parfois day am entre yow ak Pastef wax nga ko depuis bi nga déclaré sa candidature mm. et plus largement yow ak Yewwi Askan Wi est-ce que du sa doxalin à l'Assemblée nationale motion de censure euh, du nekk loo xamante ne da nga ciy ànd ak ñoom vote du budget du nekk loo xam ne da nga ciy ànd ak ñoom doxali ni yenn saa yi sax nga critiquer leen ñoom ñi nga xam ne ñoom ñooy opposition bi est-ce que du loolu moom moo indi aujourd'hui cette j'ai de j'ai avec les de Yewwi Askan Wi d'excellentes relations muy ñoom Déthié Fall suma grand frère muy ñoom Birame Souleye Diop à l'Assemblée nationale. je parle pas des moo tax ma ne non moo tax ma en tant que tel. j'ai mhm. pas de relation. difficile avec la coalition Yewwi Askan Wi muy Yewwi muy wallu j'ai de très bonnes relations te li bi liy xewee gisuma ku ma ci woowut gisuma ku ma ci woowul naqarlu li nga xamante ni xew na naqarlu ko ba fa naqarlu yem pour te dire que ne Ousmane Sonko woowu ma donc naqarlu ba nga xamante